xoolal li nga liggéey ci réew mi yëpp bayaasal te ñu ngi koy caxat caxatee ñu ngi koy yàq ñu ngi koy def nii. Hmm. te amaana loolu ñu bokkoon ci loo xam ne moom la ñuy xoolee président de la république mooy teer bi mu defar leneen ak leneen ak leneen. Hmm. te ñu te rafetlu wuñu it yàq bi. Hmm. ndax it sunu alal la aussi ñu nit. ak it bitig yi nga xam ni bayaasal ñu ngi koy daaj di ay magasin yi jàmbur yi kenn rafetlu ko. ndax réew mi am na tey li ci gën a yéeme bayaasal. am na ñoom ñu ngi tëju seen kër amatuñ luñ lekk. waaw wallaay wallaay. parce que dañoo war a xëy dem liggéey am na yoo bu ñu xëyul liggéey duñ joxe dépense. Mhm. te tey mënatuñoo génn mënatuñoo dem fenn ndax li ñuy dundee amatuñ ko parce que tey dëkk bi tàng na tàng koo xam ne mara di taal kon loolu boo waxul président kat na dellu ginnaaw looy wax leneen bàyyi set. Mhm. looy wax leneen président xanaa ñaanul yàlla nit ku wax ñu tëj sëriñ bi loolu xanaa loolu moom ku koy digal président Macky Sall digaloo ko jàmm ak salaam daal sama xalaat jàmm ak salaam mais noo gisee mm-hmm. noo gisee internet bi nga xamante ni waaw xam naa liñ ci sóor xam nga mooy li may faral di wax rek liñ naan musiba du yem ci bopp boroom mm-hmm. am na ñu manifesté wul tey ñu ngi koy yëg mm-hmm. am na ñu nekk Europe doon wax seeni njaboot tey mënatuñ ko kon moo tax lii lii daal bàyyi lii raam jëm ca ñeg ba yàlla bu mu fa am pax hmm. léegi nag ci kaw yàlla bu mu fa am pax hmm. jàmm joo xam ni moom la ñuy ñaan moom la ñuy ñaan président de la république hmm. mu jël lépp mu teg ci suuf réew mi nekk ci jàmm man bàyyi sax loolu daal laa ci xam. loolu ngay ñaan li may tëjee mooy gis nañu ni ku demee ni eh, daam Mbodj bu ñu ko jàppee jàngalekat yi jóg ku demee ni docteur yi bu ñu leen jàppee nangam jóg jàpp nañ Cheikh Bara ndax yéen dangeen ngeen di jóg ala yéen amu leen kuréel. waaw <laughs> xam Euh, man damay wax ni. Hmm. doon nekk du kuréel mais lii sama devoir di sama diggante ak sama borom. Hmm. dama koy def ngir yàlla rek tax te utuma ci dara. Hmm. ndax ndeysaan bi bi sama doom juddoo. Ah. Cheikh Baara ñëw na ba ci tudd bi. bi waajuram gaañoo dawal naa sama oto ba Touba. te loolu yaakaar naa du kuréel du dara parce que am na lu jiitu kuréel mooy jullit ak morom ma. wallaay ndeysaan. waaye li ci ëpp solo. mooy man de sama devoir. walay su ma ci mën a wax danaa ko ci wax lu ma ci mën a def dinaa ko ci def hmm. ba yàlla jàppale ko ba mu génn foofu ak mbooleem ñoom fi fekk ndax Cheikh Bara kat nit bu baax la macha allah